bi dimanche passé la fi ñëw ay 14h vers 14h 15h bu mu ñëwee mu fëgg mu laajte sama yaay jaar sama turu yaay ñu ne ko sama yaay dafa génn après mu ne bajaan moo ko yónni ci sama yaay bajaan sama xaritu yaay la en fait am na am na nu mu mel ak sama yaay ci koñ bi la dëkk quoi ñu ne ko sama yaay dafa génn mu ne bajaan moo ko yónni woon pour mu dugalal ko côté wifi bii ñu ne ko sama yaay dafa génn mu ne kon indi ma dugalal leen après mu jël sama téléphone frère bi mu dugal dugal dugal xaw ma lu mu def am na ku toogoon foofu tamit mu jël dugal dugal tegaat ko. léegi man mu jël sama téléphone man iPhone laa yore bi mu jëlee sama téléphone mu dugal dugal dugal ne ma yow moom sa bos faaw ñu dem suñu buntu kër ak sama basu sœur bi moom A10S la yor. ma ne ko man moom damay sangu mënuma ànd ak yow mais àndal ak suñu suñu suñu jànk bi ak sama doomu mbag bi boo ko dugalee ba pare nga jox ko ko. mu ànd ak sama doomu mag bi ak aji léegi bi ñu demee ñu ànd ak moom ma toog lu yàgg ñoom dugg si wuñu après aji dugg si ñu ne ko yow ana téléphone yi mu ne booy bi nee na mi ngi ñëw fii pour indi leen téléphone yi ma ne ko kon booy bi yóbbu na téléphone yi nii la affaire bi demee pare jaar suma turu yaay jaar tur ba jaan ki muy wax noonu ci koñ bi la dëkk te xale bu ndaw la xale bi bu amee 15 ans ci lay yem wala 16 ans te dégg naa yàgg na ko dem